Mm-hmm. pour mu jël bis bu ñu yaakaarul ne du bis def ko bis. du jafe ci moom xam nga dañu indi ci Sénégal couronne roi des arènes. Mm-hmm. roi des arènes bu ñu la waxee ne la CNG bi nga xamante ne bi moo jiite làmb reconnaître ko. Mm-hmm. donc c' est un titre boo xamante ne bii valeur bi ñu ko war a jox des na. ñu indee couronne empereur. man ni ma ko gisee c' très simple. mooy lu yokk làmb la. ndax tupa yi paate la ci góol dara génnul làmb. tey valoriser valoriser bii nga xamante ne bii moom la ko Albourakh Events def. Mhm. kenn ku ci nekk su lii jàllee mbërëm làmb. Mhm. ñaan nga yàlla bëre empereur. waaw. Mhm. Ah ndax xam nga mbir trophée wala distinction dina am importance mais il faut mu am lu ciy motiver nit ki. mooy mesure d' accompagnement yu mu war a àndal. amul benn trophée bu ñuy jël jox ko nit en Europe te àndul ak distinction. même boo jëlee meilleur joueur sax am nga prime ci match. bit bi gën a rafet am nga prime ci mat roi des arènes rek lañ lay wékkal nga lëngal lëngal rek moom def. Mm-hmm. donc bu ñëwee indi empereur. Mm-hmm. muy yokkute làmb ñu tegaat ci lii ñu ci wax lépp. Mm-hmm. léegi paara na day regroupement. waaw Tafa Gueye ne bu may kañ bu ma delloo samay 18 ans. mais xam nga ne lii boo ko tegoon diggante Tafa Gueye ak maam Ndiambane ca stade amitié comme stade Demba Diop. boobaa kenn dootu ko lijjanti. lambo. mbër yi ci nekk dañu war a sant yàlla bu baax a baax a baax. keroog dama seet dama dem ndeysaan Pape Fall dafa tëgg làmb ma dem diggante Lac Rose ak Sa Thiès mhm. ñuy def benn signature de contrat ci benn bërëb mhm. ma jékki-jékki xool Sa Thiès mu xool ma ma ne ko fii nga taxaw tey ñu di la géwal li sa bàyyi def ci làmb defu ko te amul li nga am mhm. li tax ngay tax nag te mu sa tax ne maa tax ngay tax soo goree na nit ñëpp tax xam ne lii tax ngay tax mbër dafa war a jël làmb jox ko téeméeri loxo fukk juróom ñaar mm. fexe bañ naw ko mm-hmm. ñi ci biti mm. de par nos paroles mais de par nos actes mm-hmm. parce que en un moment donné les paroles se doivent se transformer par des actes mm-hmm. ñu xam ne mbëri làmb yi ak nit ñi ne ci làmb ay nit lañ ñoo xam ne waxuma na làmb mais ku leen jox lu raw làmb ñu ñu diriger ko damay wax ak bërki dem sama benn xarit ma ne ko Albourakh Events waxuma sax làmb yu neex yi ñuy tëgg mais li ñuy investir ci événement ba jox dayo événement bi xam nga bu olof ne bis du tuut borom lay tooleel mhm. waxut kañ koy tuddee de mhm. ba lay wax dëgg la mhm. ndax su ma rombee paa la génn ñu ne kuñ ko tuddee ma ne paa tuddee naa la doom moo dàq ñëwoon suba ci ngénte li suba daa lay tuddee doom donc couronne bi c'est un ouf de soulagement pour le monde de la yàlla nañ ci egg ak jàmm te boo gàñe muy sa njiglaay te yeneen ak yeneen topp ci promoteur tam créé leneen ndax làmb créé la rek du ñëw rek fekk li kii def nga sof ca da ngay créé Mm-hmm. ñu créer di créer loolu mooy indi sponsor yi mm-hmm. ndax ajaa bii mu yore nii tey mm-hmm. ajaa boo ne lii laa bëgg ci mbër yi mu di ko accompagner durant temps bi mais day xam ne ci temps boobu da ciy gis boobu da ciy sawar pour ànd ak mais sol blouson takk banderole signature de contrat loolu ba ma duggee ci làmb ba tey mooy am na promoteur yi yokk lu ni parce que déplacé déplacé bi ñu déplacé Balla Gaye keroog rek bu fekkoon bu nekkul ci contrat ak bi mën na ëpp mën nañ fexe ak ci loolu. mais loolu xam nga lu koy indi. waaw c'est des yoo xamante ne bii promoteur bi daf koy teel a comprendre. Mhm. signé koog mbër mi ci biir contrat bi. Mhm. mais du mbër yëpp ngay signé yenu leen yóbbu ci ajaade. Eh, day am loo xam ne dañ koy prévoir ci contrat su ko defee. pour nga jël Balla yóbbu ko du doon mm. dara. yomb mm-hmm. te Balla da ciy gisaat boppam. Mm-hmm. ndax xam nga ne loolu plus la bu ko alburax di fay lu bokkut ak sax kase bi. Mm-hmm. donc na promoteur yi créé gën a innové te xam ne lamb. support la boo xam ne moo gën a neex a jaay ci Sénégal. mais il faut ñi ko yor xam macha allah c'est très important loolu loolu moom doy doon mbégte et euh, ñun de kon dañ naan mujjoo ñu poussé bu mu wér comme ni nga ko waxee. réccu ñu aussi li tax xale yi gis seen ay euh, aînés. ñuy bëre moo xam mhm. màngal la moo xam commencé ko ca falang ndax mbër moo gis mu nekk lamb rek am na mbër mu gis ba roy ko bu mhm. doon mbër mhm. eh, mu mel ne kon liñ nekkoon bonul ndax su commencé ci euh, ñu koy natt si ay gerte di ko teg ci bu ñu ginnaaw bu ñu bu ñu bu ñu béyee ba pare meññee fi ñor ñu lekk ko mboolu taxaw di bëre ndax kantan ndax kantan ñu dem ba muy tudd ay mille francs ñu dem bay tudd ay centaine de millions ñu dem nag ba léegi nag le lutteur non seulement hormis cachet bi mu amee mu am salaire mensuel boo xamante ne équivalent au directeur de société la équivalent directeur de société au Sénégal dans les normes hiérarchiques gouvernementales cinq cent et quelques mille francs CFA xam naa ne gis ngeen ay directeur de société yu am ay milliards mhm. par adaptation ay décret présidentiel mais fa Sénégal calé salaire mhm. mensuel ba mhm. donc mbir mi tey jii am na chance su am salaire directeur de société pendant six mois juróom benn war na ku ko dund a ah, war nga sant yàlla bu baax a baax ka am un million cinq cent mooy ka am ndam tamit kooku peut-être année bi sax mën na toog ne man de mën naa dallu un an daf beneen préparation pour gën a bien ndax un million cinq cent par mois xajul ci dépense kër ci ñenn ñi sama genre jëndoo ceeb jëndoo diwlin mm-hmm. donc yooyu yëpp nag liggéeyu làmb la ak ñu koy gërëmee les nouveaux venus nouveaux venus sax la ñoo la war a wax al bu rax yaakaar naa daaw la daaw daaw la waaw ren ren ren. ren rek c'est pratiquement ñi ñu tëgg ñëpp. Hmm. non seulement tëgg mais les cachets yi ñu am. la mbër gën na ko am ci làmb. Hmm. pour gars yi reconnaître loolu même les secondes zones ñi ñuy woowee seconde zone ñi ci topp. boo xoolee soq li mu fayeeku nii xëy na mosu ko fayeeku nga wàcc. loo ci wàcc rek ñuy fay mbër yoo xamante ne les amateurs ou les connaisseurs de la lutte naan mais non mais c'est pas possible kii warul fayeeku lii. Hmm. man dañ ma expliquer le cachet de Luis Ndiago ak surtout Falaye Balde bi. comment ça s'appelle Pokola mu ne ah non. ñii seen salaire làmb quatre fois la ñu ko fay. moo tax bi ñu ñëwee ñu jaay seen bakkan. mu bokk ci combat yi gën a tar ci àddina. ci ci comme mu ñu jaay jaay ji ba pare. def animosité ci biti ci biir arène bi ñu wane seen bopp ba mu jeex tàkk. Hmm. donc loolu day wane rek bon mbër tamit war nañu seen bopp comme ni ko Kañ joxe léegi. Hmm. mettre seen bopp en valeur. bu nangu ko leen bu nangu ko xeexle bu nangu ko saagale bu nangu ko ñëw encombré leen ci ay dagg sa xaalis. Mhm. dara def ko loolu lu ko nekk ànd ak yow xër. waaye kon mbëri seen bopp ñoo toog seen responsabilité jàkkaarloog seen public jàkkaarloog ñi ànd ak ñoom teg leen ci dëgg ak yoon ndax salaire mensuel boo xamante ne eh, dañ la koy fay te kala fay bëri ba hmm. pare yoonam nekku ca. loolu du ay caaxaan da nga war a gën a respecté sa bopp. kon mu mel ni kon tey Tapha Tine mel ni Balla Gaye tey ji bu ñu toogee dañuy déglu ne laa ilaaha illallaah lu mën na moon benn def naa ko mil tey donc merci encore à nouveau la structure Albourakh Events. macha allah loolu am na solo tey loolu moo waral Balla Gaye numéro 2 bi mu defee open press moom moom jàpp na boppam empereur ba pare parce que tuus bu bees bu mu génnee. ah oui noonu la ko tuddee. Ah, empereur bi ñëw na. ah oui moom jàpp na ne moom mooy fayoo ko léegi un million cinq cent par mois. dafa dafa dafa dafa mel ni gëmul lool de. waaw hmm. ah. lu mu gëm. la mu gëm nee na bu arbitre sifflé bu ne Balla puusal day puus. waaw mën naa nekk tamit. gis nga seen dernier face à face. Mhm. ñi jiitu woon bàyyi woon nga ci xel. seen dernier face à face duplex bi. Mhm. ban jàngat nga ci def. duplex bi jàngat naa ko. Euh, ci kaw ak suuf gis na Tapha Tine et loolu moom importance ci mbër Tapha Tine bu ñu toog di wax confiance la waxee. par rapport ak yeneen yu mu jiñ ñu koy jiiñ ci ay da sedd da nga dal da nga nanga mais nag dama gis ci moom jàng jàngat sportif mooy yëpp nañ ko. conscientiser nañ ko te yéeg na high level mi ci niveau boo xamante ne romb na làmb Tapha Tine fi mu ne bu fekkee danga nga en da tu es encadré par un monsieur boo xamante ne toute sa vie li muy doxal yëpp ci sport la ko teg muy MMA muy Eric euh, Favre mu jël la teg li ci ay condition nekkul la premier fois Tapha dem ko di war entraîné ji ah. Mm. Tapha Tine dama ko mm-hmm. ci panelu les sages. Mhm. muy entraîné Casamance may may laajte ndax Tapha Tine entraînement mi. ca Bombardier la. wala ca bu mu bëri Bombardier bu njëkk ba la wala léegi la. ñu ne ma non non bu yàggul la ma nga Côte d'Ivoire nii. ma ne ah parce que daf ma indil état physique boo xamante ne gis ma ci moom poil de graisse gis ma ci woon ballonnement gis ci moom athlète fin abdominaux yi tracé muscles yi ne jog taxaw boobu Tapha Tine lañ soxla pour mu jàkkaarloo Balla Gaye numéro 2. néew ma yi ñu fa def ci diggante bon na mais ba mu nekkee ci Elton nekk ci Bombardier état boobu su koy dëlla si waatee ci yaramam rek dama ne kii mbër mu naqaree bëri lay doon ta am na vivacité am rapidité am confiance di fight un vrai boxeur Tapha Tine tey jii bu doon làmb war na mu nekk champion du monde de boxe parce que am na taille am na gabarit bi te am na ndoxte bi te mën na dóor waaye nag ñu si sikkee leen rek trop de patience mm. maanaam euh, dafa dal trop ci par rapport ak agressivité bi mu amoon bu njëkk bo mm. xëy na nag ci diggante bi ay at la. xëy na ci diggante bi masse bi yokk na fa mais Tapha Tine su paree mel ni mu war a mel am vivacité am rapidité bien ci yaramam ah mbër bi taxaw man bëri moom dañ ko waajaat. Mm-hmm. kañ seetaan nga euh, duplex bi. doon def keroog. waaw seetaan naa ñoom ñaar lan nga jàngat ci ñoom ñaar ci seen i waxin. waaw xam nga xam nga Tapha li Moustapha wax léegi daf ci am léegi dafay dégager plus de maturité. Mm. te xam nga soo jaaree ci dara ba pare Sénégal moom li Peter Siniga waxoon na fi nekk ñëpp ay coach lañ mm-hmm. ku ci ne defal nii ku ci ne defal nii te loolu nit xam-xam boo tëddee yaa gën a xam sa bopp nit mm-hmm. bala xam nga ne soo duggee ak moom ci communication bu intense <laughs> dala la ciy ak mbër boo mën a doon mm-hmm. soo gisee tafaa ni muy doxee nga xam ne comprendre na loolu donc mu ngi éviter communication bu bëri bi digganteem ak ak bàlla beneen bi ci des mooy am na lu mu guux bëgg koo génne wala am na lu mu bëgg a wane ndax su nattee boppam xool boppam danaan noo man lan lañ may be hmm. logiquement léegi loolu daf koy wane chaque jour ci combat bu muy bëri mais mi ngi jëm ci combat boo xamante ne bii damay wax ne Tapha combat bi moo gën a danger ci carrière am hmm. Hmm. la boo xam ne bu ci daanee lu ko ñàkkoon ci làmb mën na koo jëli juwaat mais combat boo xamante ne bii bu ci safaan wa amee lu mu defoon ci làmb ci cinq ans yii passé yii mu romb da koy ñàkkaat. te bëri da koy jafe sax après. Mm-hmm. wala ñam yi bëreel du ko neex. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye tafaatin bi ma gis. il est fin prêt et décidé. waaye day bëri koo xamante ne bii natt ko yombut. saa yu nekkee ci ay jouram neexut a canaliser. man su ma indi woon tafaatin. su arbitre daggee jéngi yi. ci kaw Balla Gaye laa jëm si. Ah. parce que ah, démb waxoon te man loolu laa gëm. Balla Gaye dafa am manin. te saa yu la ci fekkee. moo la man benn jubb kuñ ko xamee boo ko watee foo romb ñu ne kii kana. Balla boo taxawee ba mu gëdd la. xoolal tireur de penalty yëpp nee naa la ko démb saa yu dawee ba jub bal bu ñu defee temps dara dañuy réeral góol. waaw Balla balaa egsi ci bal bi day day réeral bi. ndax da lay gëdd. ba pare ah. door dal sa te bu dalee sa kaw du jàpp dalay jaxase ak ay gauche droite. Mhm. te avant Balla Gaye yi kum dal